jàmm jàmm ji dellu ci ca ndax géej ak fanweer ak ñeenteelu anniversaire bu génnub àdduna professeur Cheikh Anta Diop mooy ñaari ponk yi nga xam ne moom la ëttu yéenekaay yi gën a waxtaanee tey jii di samedi juróom-ñetti fan ci weeru février ci atum 2020 ñu door ko ak waa Sud Quotidien Sud Quotidien ne ki nga xam ne mooy Alioune Ndoye nag wis na ci ndox mu sedd tukki nemmeeku ministre bi nga xam ne moom lañ dénk wàllu napp fële ca ndar géej nag mi ngi am ginnaaw jàmmaarloo yi amoon ci diggante nappkat yi ak takk der yi foofule jëm ci wàllu licence de pêche yi yooyu la jàmmarloo ëttu bu Communication mi ngi fàttali ne juróon na yàqute ak it ay nit yoo xam ne am nañ ci ay gaañu-gaañu ci ndaje biñ doon amal démb ca gouvernance bu ndar géej te mu am ci diirub ñetti waxtu nappkat yi nag ñoom nangu nañ ne daal ñoom ñoo tooñ moo tax it ña ngay baal bu baax askanu Sénégal ba tey bu ñu sukkandikoo ci waa Sud Quotidien nappkat yooyu le ci kàddu ki nga xam ne moo yoroon seen kaddu di Amadou Faye mi ngi xam la ne li xew kenn mënu nangu te it ci dëgg-dëgg daal du woon jikko waa Gendar moom Amadou Faye mi ngi soññ naataango mi ñu delloo ci seen xel te dootuñu nangu kenn di leen yóbbaale ki nga xam ne moom la ñu dénk napp gi di Aliou Ndoye nag moom nee na moom it lii xew daal kenn mënu ko nangu te dootuñ nangu mu am foofule ca ndar géej li ko jaaxal mooy li ñu wax ne moo tax bu yile jàmmaarloo am moo teguwul ci yoon ci wàllu licence yi ndax ne nañu waxtaan nañ ci bu baax a baax ak waa Mauritanie Soleil 24 heures ak waa Grand Place xam leen ne sax ne gouvernement Mauritanie jël na dogal xamal ne amande yi dootuñu ko fay nii lan nañ ko loolu Aliou Ndoye moo ko xamle ci boobu la ndaje ci fàttali nag yooyu le amande ak pénalité bépp nappkat da ko war a fay ngir jot ci licence yi keneen ku teewoon ci ndar géej it mooy médiateur de la république ba Badara Cissé ginnaaw gi mu woote ngir jàmm am nag nee na xolam métti na lool ndax li mu gis dafa mel ne sax ab mer ba futt la ci jële mi ngi gën a soññ nappkat yi ñu delloo si seen xel ba yàqu-yàqu yi nga xam ne moom lañ amal foofu la ci ndar géej mu bañ a amati beneen ponk bi nga xam ne moom la ëttu yéenikaay yi gën a waxtaane tey jii jëm ci wàllu Cheikh Anta Diop fanweeri at ak ñeent ginnaaw gi mu wuyjee suñu borom waa Sud Quotidien bind ni waa kuddu dañoo dekkil Cheikh Anta Diop ak conférence yu mag yoo xam ne démb dañ ko doon amal foofule ca UCAD 2 xët bi ñu doon waxtaanee nag mooy lan la Cheikh Anta Diop bàyyil jeunesse Afrique bi waa laas bind si seen xët bu njëkk ne Boris Diop dekkil na Cheikh Anta Diop bu ñu duppee pharaon waa tribune moom gën a xuus si mbir bi defal ñu nataalu Cheikh Anta Diop xamal ñu ne sax moom moomule ab murit la woon ndax waa waajuram bu jigéen nekkoon na soxna maam Cheikh Ibra Fall waa l'enquête ñoom it dellu si ci sargal bi doon sargal doo àdduna waa enquête ni intellectuel yu bëri lenn la ñuy sàkku mooy ñu fexe ba lépp loo xam ne moom la Cheikh Anta doon jàngale ñu dugal ko ci programme yi gone yi di jàng ci lekkool yi Cheikh Anta wàllu l'Afrique ñoroon ko lool loolu ñu yóbbu sax ñu wax ci some Union africaine bi nga xam ne mooy am ci Addis Abeba te njiitu réew yi ci bokk nar fa teew waa Soleil ak Sud Quotidien ne li tax a jug boobu leen ndaje nag mooy fexe daal ba delloo si jàmm ci continent l'Afrique teg lépp loo xam ne dafa jëm ci wàllu ngànnaay yi ci suuf waa Libération moom di ñu wax benn information judiciaire boo xam ne ubbi nañu ko li ko waral nag mooy dañoo tuumaal wàllu détournement ak lépp loo xam ne dafa jëm ci faux ak usage de faux ci ASBEF directrice moom fi mu toll ni dañ kaa ajandi ñu wax ba tey ci wàllu yoon ak waa critique Viviane Chidid rëcc na prison suñu naataangoo yi ne Viviane Chidid dañ ko doon déglu démb ci sureté urbaine ginnaaw bi ñu tegee loxo benn réseau boo xam ne li ñu doon yëngu mooy trafic jëmale ci visa yi te manager am mi ngi ci loxo yi yoon Viviane Chidid ngir ci prison dafa dem jege si enquêteurs yi ak lu mën a am waa critique nee nañ bu ñu moyul bile affaire dana yëngal réew mi leneen loo xam ne ñu ngi koy ruumandaat mooy jëm ci wàllu Mbayang Diop ci biir soleil nag ñu ngi xamal ne waa Arabie Saoudite moom nee na ñu dara jotul ki nga xam ne mooy Mbayang Diop mi ngi sant yàlla ci wàllu wérgu yaram loolu tax suñu naataangoo yi 24 heures yi bind ne ambassadooru Arabie Saoudite weddi na kàddu Horizon sans frontières ñu jeexale kook tàggat yaram ak waa stade di ñu waxtaane mébét yu mujj bu bali foofu le ca Naples ginnaaw bi nga xam ne dina ñëwaat ci terrain bi ci dibeer gile ginnaaw ay gaañu gaañu yoo xam ne amoon na ko ca waa stade di ñu waxtaane it juróom-ñeenteelu journée lii 1 sénégalaise ak match yu am solo yi diggante jàmbaar Tëngéej FC ak Mbour Petite Côte ñu jeexale koog waa sunu lomb bi jox kaddu gi tey jii rëg-rëg rëg-rëg bi nga xam ne fële ca États-Unis la nekk nee na Fallou Ndiaye mi ngi dox ay tànk ngir ñu tëgg combat mag Malick Niang rëg-rëg di xamal waa sunu lomb ne bile combat mooy tànneefam bu mujj lii moo gënoon